mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi leen seen i bët te tàggoo ki nax ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng dang ne maa ngi ni nëbbatul ay mbiram saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ténor ya fare foofee ca géejawaay ñu leen di woowee ay VIP ak seen combat yi ñu jóge ci saison yi ñu génn ñetti saison yi ñu génn la sunu làmb def mooy xayma ténor ya nekk géejawaay lan moo nekk seeni performance muy Balla Gaye 2 di Lac de Guiers numéro di Elton di Gouye ba ci lees de VIP ya nekk ca géejawaay sunu làmb daa xëy le lion de Guédiawaye moom ñaari combat la ci am ñaari victoire mais def na benn saison blanche ci la dellu ci gàddaayam ñu jox ko Gris Bordeaux mars 2018 ci Léopold Sédar Senghor mu daan Gris Bordeaux dellu si waat ci lamb ji saison 2018 2019 ñu jox ko rivalam ba Modou Xarañ Lo mu daanaat ko une seconde fois le janvier 2019 ci Léopold Sédar Senghor la defale Modou Lo affaire bu dee Lac de Guiers numéro 2 ci diirum ñetti saison yi 18 janvier la woon foofee ca Léopold Sédar Senghor le 13 juillet 2019 ci mu am Boña 2 pan ci kawam saison 2019 de tooyalul xaftaanam bu dee guy ci diirub ñetti saison yi nii benn victoire la ci am ñaari saison balance moom le 29 avril ca stade Léopold Sédar Senghor la daani Siteu woon ko boppam dafa année balance dafa année balance bu dee Elton moom it ci diirub ñetti saison yi benn défaite la ci am ñaari saison balance bu ñu waxee benn défaite Léopold ko rëg-rëg daanee ca saison boobee ba léegi 2018 2019 dafa année blanche mu année blanche bu dee lees ci ñetti saison yi amu ci benn combat amu ci benn victoire amu ci benn défaite ñetti saison ñetti année blanche loolee la def yi la ñetti saison dafa xaw metti ci moom ka juróomi défaite nar metti ci moom ba yegg ci loolu mooy Siteu la tarkindaa gannaaw ba ko Mame Balla de daanee booy sëy ak saa sa guy gi jaar ci kawam cinquième défaite moom dara dana am ay avantage wala ay inconvénient kenn xamagul kan moo ciy gagné kan moo ciy perte kenn xamagul en jàngat ba ca sunu làmb def du leen lu li ñoo fee force mbooloo mooy doole te Fass ak Dakaaru bu ñu àndee doole dana feeñ bu boobaa écurie Ndakaaru dana am lu mu gagné ci Fass Fass dana am lu mu gagné ci écurie Ndakaaru bu boobaa képp ku nekk ca Fass da nga ci expérience u gone yi nekk ca Ndakaaru ca bëgg nekk ay mag yi ëllëg danañ bénéficier wu ci expérience Gris Bordeaux bu nu jàllee ca Mame Balla numéro 1 la nekk ci xelam mooy daan bay guy gi ba mën a dem ca kanam seen combat ba ñu jàppoon daaw ba taxawal ko ñu doon xaar bëre mbas maa fa jaar comme ni mu jaare ci yeneen combat yi teewul Mame Balla ba léegi mu ngi xaar adversaire am moom am na gëm-gëm am yàqin ne bu jàkkaarloog bay guy gi lépp lu ñu a def ca combat ba moo koy def mooy bëre mooy xeex a a xeex war a daanante mooy ñaari mbër ya fay production boole muy Sibel ak Bébé Saloum numéro 2 bile combat la journal ba ko Sibel bu Ndakaaru ak Bébé Saloum numéro 2 bu sàkko xam-xam bile combat taxaw na bëre ca des bile combat bëgg a moo mën faaw pënd ba wuri ba ñu xam ñoom ñaar naka la defante jërë ngeen jëf mbokk yi li ne ko li gën fës ci étu yéenekaay bi ñu jox di daje ba ëllëg incha allah